il est un homme talentueux il est un homme reconnaissant il est un homme bien reposa moi ki nga xamanteni mo taliof, il est kon du <laughs> ginnaaw yàlla buñ jullee si yonente bi junni suñu waajur dëgg man des fois fàtte ne si làmb laa ne dama ne Lapaza boo ko xoolee YouTube xool ko Twitter xool ko Messenger TikTok nga koy mujjee gis ndeysaan loolu foor na waaw dama ne Lapaza son bu mu génnee si àddina maa koy ñëkk a TikTok dëggal loolu waaw dama ne Lapaza li war a wax si moom dafa bari ah dëgg la ndax Lapaza doon na nit koo xamante ne nii mhm. dafa téye dëgg neexul le PASA gune gu jar a bàyyi xel la dëgg neexul le PASA si mim réew mm. le PASA mm. le PASA mm. kaw ca kaw ko ma ne goon gars yi yéen a ko déggandoo ah. mm-hmm. dafa leer loolu dafa leer loolu dafa leer dafa leer loolu loolu man maa siy wax le PASA moo doon nit koo xamante ne ni bu bu tegee concert nga ne concert la man le PASA bu bu tegee showcase nga ne showcase la man représentant nga invité ko rek si concert mu mel ni moom moom moom concert parce que. booy bi am na talent man na li muy def. ba pare représentant day yëngal xam nga xale des fois sax xale mën nga nekk xale ay xale ngay yëngal mais représentant yëngalul ay xale ay mag lay yëngal. Zimo ta loo si xamul booy bi nekk na koo xamante ne nii macha allah gëm na li muy def gëm na boppam te kaay ma wax la Zimo ñàkkul fayda de. Ah, ma wala xale bi la la laal. Ah. xale bi live la laal. live lay ah. kon kooku ñàkkul fayda. ah. à loolu ay waxi gis nga gis nga loolu ngay wax noonu ay waxi léeboon la lippoon. Papu ne ah ne ñaari mbalka duñu ñu bokk ñaari kuy du ñu bokk mbalka li olof Njaay wax. ñaari kuy du ñu bokk mbalka te duñ bokk gétt tamit gis nga ñaar ñooñu bu yeboo nañu leen ñaanal te bàyyi leen xel ndax ay xale yu pare lañ nag. si moom muy Papu ne. di le Paza. Papounet yàlla dafa dogal break la ñëkk a def. dëgg la ñu ne Papounet moo dàq break Sénégal. dëgg la léegi Papounet dafa jël break bi boole kaak musique bi. dëgg la mu doon ñaari talent yoo xamante ne dafa daje ci moom. maanaam maanaam kooku mooy suñu Chris Brown. waaw kooku mooy Chris Brown sénégalais Chris Brown. waaw mais maa ngi lay bëgg de lépp jàmm. waaye nice dal jàmm. waaw. waaw dëgg la dëgg neexul dëggantaane neex barke yonent bi c'est le travail de moo fi teg tànk dama kaa xam parce que ay BMG ay Pago Briz booy bi da leen di lekk ñoom ñëpp. BMG Pago Briz rappeurs yu ndaweet yu mag yu nekk yoof maanaam alentour yoof ba wakaam ngor yëpp Lapaza da leen di lekk borom tent bi. waaw xam nga Lapaza maanaam dafa doon booy boo xam te ni dafa am talent ci rap. am na jabu rapport am na talent bi am na lépp lépp mi ngi moom tey li ko soxlaa ci rap tamit lépp mi ngi si moom ñun maam toppuñu ko ngir affaire de alal et tout yooyu noonu ñu dañ koo bëgg te yàlla rek tax. mais est-ce que gëm ngeen ne Lapaza dina wàccee rapport yi fi nekk doog boo bëggee dégg-dégg ñun dégluñu kenn dégluñu Ngaaka dégluñu Dip dégluñu Sampasi dégluñu Matari dégluñu kenn ñu Lapa rek la ñuy déglu. waaw ñu lay ziar ko ba sant alhamdulilah sant naas waaw. waaw waaw loolu mën na neex c'est vrai mooy li am sax waaw dëgg la parce que Labassa moom mooy borom Yoff moom moo jaral ñu jógee Diourbel ba fii nii ñëw daal di teewee bis bi yaa mu gën a xam yëngal moom mooy loolu quoi. Labassa waaw ñu ngi koy sànni benn pic boo xamante ne nii mooy gem bi am na fi place quoi. te Yoff gi incha allah bu si kanam kanam ay BMJ yi nga fiy dégg yi nii ay Pago Brise yëpp day dem ba doo leen dégg Labassa moom mooy borom Yoff quoi. waaw nice lépp jaam waaye yow man la Kingo Pikine Kingo Pikine waaye yow man la dafa Labassa bande bi waaw. mais booy bi Labaza mooy rab eh, eh, eh, Labaza moo moom rab keneen moomu rab ngaa xa belende dip BMG Paco Briz ñoom ñëpp dañuy xaar pom du moroomu neew maanaam ñëppay xaar pom du moroomu neew te la mu saf ko ko mbacc ko xam déggoo li ma la wax dañ ne heure jot ñu arrangé sàppe léegi si kanam nag la ñu xam da nga xam ne booy bi du du moroomu grand frère waaye waa yëngu leen li ma leen wax maanaam ñu ànd ak dal xam nga xam ni tamit booy bi ndaw la quoi ñu jàppale ko xam ni tamit lii tamit naw luut yomb quoi xam nga booy bu ndaw ñëw yëngu leen nii fas yéene ko yëngal nag. dañ koy yëngal ba mu neex buñ paree nag ñu jéem a xool nan la ñuy def grand théâtre. mais bi en sept mois mu liggéey ah. moom kese moo ko defagum la passage ñu maa ngi dégg ay joroolam quoi ndax na booy boobu noonu tamit ku cool la ku jàppaar la ndax tamit son yi qualité laay ci moom nest Euh, vraiment tamit affaire li mu ko wax mooy tamit na gën a góorgóorlu gën a jàpp xam ni affaire yi aar bi na kenn moomu ko ku nekk mën na bay sa waar. yaatu na li ma laax. ma na mel ni lënd ak mardi dox seen diggante ñoom ñaar buñ ko defee rek. waaw waaw. waaw gars ci kaw sa kanam naas waaw. kooku di Lapasa ñu ngi lay ziare. ñee ñu ngi lay ziare grand bi. mais tey gis nañ fi 11 11 nuyu si wàcc nañ fi gis nañ fi fii salle bi fees na saal yëngu sa mm. ça fait des années gëj nañ gis salle bi fees mais nu mu fa demee noonu. waaw dañuy dellu di santaat yàlla xam nga lépp yàlla la xam li lii yëpp job waral xam fii fi boo joobul rek doo fayeeku dañuy santaat yàlla santaat yàlla. mais tey dama def benn interview booy bëri ça fait bëm. leneen yoof benn rappeur la am. su wootee paaye maire ñëpp dañuy dugg si jàkk ji di ko ñaanal. beneen rappeur nekku fi pour Lapaza mais loolu la moo ko waral. yow ak nit ñi quoi. fii fii adduna bi foom fii loo fi jaay nit yi ñu wala ko quoi genre boo leen jaayee diis nit ñi ñoo la gën a diis xam lan ngeen mën a jaay lu dul oyof xam doon bàyyi faal seen i kanam fii moo tax gars yi tamit dañ découvrir avant Magalbi. bi dañ son je pense que Ben boy bu pas fakku ak diplo son bi dafa def boum, ba am clip bi dafa a Trace Trace Africa Trace Sénégal et Trace Canada mais lan nga si am wax ban ak game bi nga rek game bi rek dañuy rek fait, def wax lu carton xam gars parce que parce que période bi di live Baye Fall yi yor nañ lu jënd fii lu waay di jaay bu dee rappeur mun rap Baye Fall lu koy jënd bu dee sañse gars yi jënd xam ñun amul leneen lu ñuy ñoo lépp waaw ci Fall lañ koy wuyoo bay Seere Fall. mais est-ce que pare nga pour changer rap Yoff yóbbu ko fu sori. loolu loolu par force la. non dégg ma rap Yoff yar ma changer ko par la.

lii mooy avantage carrière bi. mais ngay jékki saa di dem jouer ji concert jàmbur pourquoi pas nga organiser sa affaire bopp nga war a innover créer musique gu Yoff dafa war a dépasser level bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gaan bilaa wallaay. fi yow. Uh-huh. enquête si yow. Mhm. Lapaza koñ bu mu dugg mu ngi fexe nu muy jubaalee nit ñi. Mhm. nu mu fexe bay change génération bi. ñu oh, oh. ngi beneen bi ma defaat découvrir man personnellement maa ko wàcc. Mhm. Lapaza nekk na artiste boobu euh, dem na joobi ji lan ngay wax booy yi nga xamante ne ñu lay suivre tamit. fii live bi rek gars moom dama leen waxaat ñu gën a ñaaxaat doole bi genre loo doon def benn di ko def fukk parce que fii live bi kenn xaarul kenn temps bi xaarul kenn temps bi dafa gaaw fii foo toog di nekk si nekk ci leneen am na leneen luy def leneen tamit di ko xaar moom dama jàpp ne waar bi amul taxaw fii loo taxaw rek am na leneen lu war a ñëw moo tax genre awma jotu taxawaalu lu dul studio bi man loolu man bu ma bàyyee lépp pour musique dama koy jox lépp awma leneen lu dul musique man musique mooy sama waar man loo ma wax lu dul musique bëgguma yeah, fi may tëjee yow gis naa Lapaza dafa nekk complice ak yaayam. Mhm. tey nan ko dundee ak des fois nga baal ma si terme yi ñii naan yaajee kay wala affaire yooyu doon ti olof dafa ne. wax na ko mhm. Mhm. ñaanu waajur gàllaaju doom la ban message nga may sànni jeunes yi ak ban message nga may jàllaleel sa yaay ak ban message ngay duggee ak fan si si. waaw loolu moom loolu la si tontu du du yàgg genre dañuy naan peccum liir bu neexee yaay jaa jàpp si mbagg su yaay bu toogoon di ma seetaan heure bii nii du yegg fii. dañuy santaat yàlla parce que ku nekk ñaan na yàlla di def dara sa yaay fekkee ko rawatina musique loolu dafa foor ci nit xam nga su ma yaay damay ñaan yàlla mu continuer gudd fan di ñaanaat yàlla adduna bi daal fii liggéey rek. DJ liggéey rek fii lu fi waaye liggéey fayeeku loolu noonu fii lu fi waaye liggéeyul nag doo ko fayeeku gaan toog di tëdd nelaw yomb na de mais da ngay yeew nekk sa bopp xam nga gën a innové beneen affaire parce que musique bi nekkul bind denc nit ñoo fi nit ñi fi dàq bind denc anañu gisuñu leen genre bindu denc pour lan la gars yi génnee leen ngeen xama ngeen yéegal rab gaal seen bi xama mu innové ñu changé musique surtout nag musique yoof hip bu yoof DJ dafa dee hip bu yoof dafa dee hip hop bu yoof dafa dee war na jóg war na jóg war na jugaat li ko war a jugul nag gars yi yéenay jug affaire hip bi nag bu xama mënul yëkki boppam yéena ko mën a yëkke gars yi wasalaam xama gars yi fekk leen ma ci biir ñu def show xama maa ngi lay joxaat de Hey, what about that? si Yoff découvrir ben artiste bu naan La Paza quoi ak yenen artiste yu fi nekk mais tay nan ngeen gisee La Paza ak bésam fii ok salaamaaleykum maa ngi nuyu sama gars di len bëggee di len sante di leen jox seen way quoi aussi tamit La Paza fa nek ben jeune boy nek ci talent ñu ko xam bëri na loolu nekk si Yoff am respect am lepp jox ñëpp cër waaw ku mu dis dalay nuy aussi man bu ma xamante moom yàggul sax waye mel ni xamanté ay at at aussi tamit kontaan si moom loolu booy bu cool la waaw te mun na mënul lu muy def quoi aussi tamit mën na lu def trop waaw. ok loolu moom dëgg la moom aussi tamit c'est vrai trop parce que booy la jeune la aussi tamit li muy def da ko gëm amu si benn caaxaan waaw Lapaza moom lu ñuy wax si moom des na quoi su ñu waxee Lapaza moom bëri na lool lool Mm-hmm. mais dama déggaat si moom beneen facette boo xamante ne à part artistes yi maanaam jeune talent yi nekk yow moom mooy artiste bi fu njëkk a def concert en live. waaw c'est vrai nag waaw moo ko njëkk a def fii nag waaw te bu mu fulee yàggul sax waaye maanaam lu muy def da ko gëm moo tax ma ne lu muy def da ko gëm su ko gëmoon du est fii quoi aussi tamit waaw dafa sax benn jeune boy la dafa gëm boppam waaw nekku fii di toog si ay ñàkk fedda doo ko fekk si lu ñàkk fedda gëm boppam moo tax mu asi fii tey mu ñëw tëgg conseil am ñëpp wuy si ko tam aussi tamit koy dégg ok waaw ñoom ay grand frère la aussi tamit ñoom ñoom ay grand frère mi si ginnaaw ñoom ba léegi aussi tamit jox na ñoom seen cër waaw waaye moom dafa gëm boppam maanaam mi def lu nga xam ne ak xam quoi si rap waaw te soom ku ko dugg nga xam ne Rapaza mi booy bu am talent la te nekku si nekku si yoon bu nga xam ne dañ koy yoon dem la nekk quoi aussi histoire dañ koy ñaanal mu gën a dem tamit.